Ahmed Aïdara bismillah la xew démb ndar géej day ah doy na waar lool tribune dama ne la ay jàmmaarloo kon moo doxoon ci diggante nappkat ya de ak takk der la ilaha dama ne la problème mu licence de pêche waaw waaw waaye gis nga nappkat yi nga xam ne nag ñoo nekkoon ca langue de barbarie googe waaw daal di nañuy wane ne kon seenu mer day ca mbedd ni ki démb exclusive yéene kaay ne dëgg dama ne leen waaw démb day safara sa kon daal dina fay wàcc de ak dara kay waaw am na ñaari oto a agence Senelec ba dee dañu koo wàccee ak ay xeer dama ne la am nañu bëree bëri ñoo xam ne kon dañ doon manifester daal dinañ leen tegul loxo hôpital régional ba waaw dañu koo bombardé ay grenade lacrymogène laa la wax laa ilaaha illallaah licencié la Le Quotidien yéene kaay na dëgg la licencié la dama ne leen ndar day ah démb daal di ne géej nar kay waaw daal dinañuy kon seenu mer de ko wane dëgg la agence Senelec ba dee jaxat-jaxatee ay policier gaañu gaañu siège OMVS ba dee taal nañu ko ñaari oto taal nañ leen gaal ya taal nañ leen ay manifestant teg nañ leen loxo la ilaha illallah laase talaatay ndeer de la ñu dund kon démb ca talaata ja kon ca ndar géej la waaw waaw safara sax ca géej ndar ëpp na fanweer ci ay doomu aadama yoo xam ne kon am nañu ay gaañu gaañu de banawaar la doy waar kay source a nee na ñaari xale ngi ni de ñoo boo ko bàyyi ci juróomi waaw dañoo lakk ñor ca Touba allahu akbar la ilaha illallah ca Touba googee Libération yéen i kaay nee na enquête bi nga xam ne nag maanaam moo tax ba ñu rey kon Njóoba Seck mi la ca Pikine sips waaw ëmb juróom weeram ba tey moo tax ba ko doon bëgganteeg moom ray ko laa ilallah waa lii la xale ba nga xam ne moo doon bëgganteeg moom day Alioune la ñu naan ko Alioune Moto waaw Alioune Moto daal moo mënu la nangu Njóoba Seck mi la ëmb ci geneen góor gudul moom daal di yëkkati lu toloo juróom benn ak ñeent laa lay wax nii ci ay jam nan la ko sow ak yeneen ñaar daal di kon direct news de waay waay Sénégal gi lée mbaa doonag dafa mujj kon dugg ci m guta guta gu na ko de ndëpp ak sangat rek sangat rek sang réew mi rek yéene kaa ngi ne waaye yow est-ce que nag du ñu mujjee ko ray a aar ay doomam laa la wax enquête yéene kaa ne en ay doomam yi nga xam ne kon ñoo nekk ca Chine googee waaw daal dinañuy nekk nag ay tirim ay baayoo de la république parce que nag nekk ni ne ah, ña nga toog di xaar de dee couloir de la mort mar de tali toll nañu ci fukk ak ñett laa a wax yàlla daal la ñuy xaar la délivrance sëñ bi ku lu bali bi lée doomam étudiant la fa nee na daal dañ kaa naax waaw waaw yow xoolal ma Maroc Tunisie Algérie waaw jëli nañu seeni doom de ba indi lee Sud Quotidien kaddu yi nga xam ne nag moom la président Macky Sall yëkkati de waaw ci wax laa la wax sursaane en tout cas waajur ñi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Chine googe waaw danañu jàkkaarloo kon ak gay di Sénégal doon fi tubaab a gën doon fi sénégalais de mar di taali ubil 24 heures yéene kaay nañu na plateforme technique bi lé moom promobile waaw waa Free day la ñuy ci promobile bu alaaji Mbacké Faye mooy daanaka juróomi milliards yaa jum wala maa jum ma ne am cinq milliards wax te jamono jooje ana rapport yo source année rapport du Cour des comptes yi day waaw yorin nga na ca mairie bu Gossas fële waa Gossas a juróom ñaari tonnu ceeb yu tëgas lëf ah ay mag waaw ci juróom-ñetti fan Madiagne Seck moomee daal jëndaat ñeenti tonnu ceeb yu tëgës ngir juróom-ñetti nit ak gone eeway eh samba yéene kaa gi mbir ma yemu fa de parce que bu Gossas day waaw nee nañu lu juróom fukki million ak ñetti yu tëgës dugal kon ci wàllum secours bi lée social te eh yow enquêteurs yi gis suñu certificat d'indigence gis suñu liste bu nit ña signé bénéficiaire ya gis suñu rapport commission sociale ba gis suñu ay a xamal ne rapport yi amul solo amul njariñ sëriñ xaadimu rasul ci am yemu ca ndaxte waa ji nee na amul njariñ laa wax lañ ko war a def daal mooy dem ba mbëbës daal di fay sànni rapport ya laa la wax ardi daal waaw waaw parce que sénégalais yi mosuñoo choqué ci rapport wu ni mel laa wax critique yéene kaa ne mais xoolal ma coowal Petrotim ji lée Alioune Sall ak Franck Timis ja waaw gas suul day ñuy mujjee de gas dox leen dox leen circulé Petrotim amul lenn la wax buur buur la rëkk buur buur la exclusive yéene kaay ne demoo ni Macky Sall dee bi muy doog a toog ci deuxième alternance waaw na ñoo dee ak yorin gu sell ànd ak sakanal gestion sobre vertueuse ñeeng ñeeng ñeeng patiti patata waaye askanu Sénégal waa waaye waa kër Macky Sall ñemewuñu wax dara tey li feeñ les ko yéene kaay ne ñoo lànk waaw da ngay sàkku ci Abdoulaye Wade na leen baal ñoo lànk ko tànti tudd na waaw Alioune Sané ak ak ñoo moom la kilifa bu yaana maar ko yëkk Dakar Times contrat Akilee waaw scandalu Sénégal bu ni mel day fee am moo gën a garaaw carte numérisée yi maar day taal yéen kaay mu baan bi ne waaw xanaa xamoo ne Akilee daa nuroo Petrotim ñaari at laa la wax ginnaaw ko créé la gañ a marché wu cent quatre-vingt-cinq la ilaha illallah la dil ba daa mooy dong waaye dañ doon dil yéene kaay gi ne armée bi day mere nañu maam góor jasaako lool maam góor kat dane soldaar yi nañ génn ci sécurité bi moo gën ñu toog ci camp di lekk ceeb rek maam góor jasaaka ne bu kenn soppi samay wax man ko respecté armée bi laa grand place de job si day ah dañ koo jëm baaraamu tuuma de ca almadi de wàllum suufa ki waaw yéene kaay waaye job si mi kan moo koy protégé les ko yéene kaay ne tam jongante ministre Moustapha Diop meeru Louga yemu ca ndaxte xam le ne ne gis nga privé waaw lii doxal koom-koom gi ca la bokk dee sur quotidien ne grève total wàllu njàng meeg njàngale waa GCT bàyyiwuñ pression bi dee évidence yéene kaay ne coow am tamit ci 2012 waaw Ibrahima Sall day ma ngay dox na daan ko jàmm dama ne la Ibrahima Sall ngay dox daan ko jàmm diggante maître Moussa Diop ak ñoom aji mbir gànkanu te léegi ko yéene kaay ne waaye mbaadu gaz fii ñuy toggee a gaz ak pétrole cay gaz ak pétrole <laughs> waaye nag ak lu ñu yokk gaz bi gaz bi gaz bi gaz bi gaz bi gaz bi suul ko du ko teree xeeñ de troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna daa war a génn ci kaso bi rek ma ne la tëjal dégg grenade lacrymogène yu mel ni tulleeg mala démb ci dëkk ba enquête ne ay oto yu taal ak lu toll ci juróomi policier yoo xam ne dañoo amee gaañu-gaañu ginnaaw jàppante gi laas ak vox populi ni nappkat yeeg policiers yi ñu doon sànnante xeer démb soobu ci defante gu la kenn mën a nettali yëglekaay bi ne ñoom nappkat yi lañ doon sàkku mooy seen licence yi ñu daal di ko renouveler laas ne démb kay talaata yi ndar dëgg nag lañu nemmeeku ci dëkk def le quotidien lu fukki policier la ñu gaañ te ñoom nappkat yi yamu ca ndax dañoo caxat-caxatee siège OMVS bi ak yeneen jumtukaay yoo xam ne mucc ci Les Échos ne démb nag ndar géej mool yi dañoo betti seen mer ci mbedd bi ginnaaw bu ñu ne autorités yi di kilifa yi dañ leen tànqam lu ginnaaw seenum njàmbat loolee tax ñu ba ay policiers yu bëri am ci gaañu-gaañu ba noppi taal jëppët ñu def doom yenn ci manifestants yi jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon La Tribune démb kay mool yi dañoo fippu ba noppi bool lu leen naqari lépp nag becc ko ci mbedd mi ñi fippu dëgg kay mooy jàngalekat yi ci réew mi Sud Quotidien tey jii ci àllarba gi grève total la amal mooy l'école yi ak classe yi bu diggante g G20 ndax waa G20 coowal yamba gi dorog gi coowal phobie yi ñoo jalaa ñoo ci mim réew ndax lu toll ci junneeg juróom ñeent téeméeri billet lañu teg loxo le quotidien douane bu Sénégal dafa dina jaloore de ndax lu toll ci téeméer ak ñeenti millions sunu koppar ci phobie janvier la teg yoxo l'observateur ak laas ñu nga ca faatum njóoba sekk ñeent ñi ni doon déglu ñottes ne ñoo faat njóoba sekk ñoo nga ca loxo yoon jamono ji libération ne enquête bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci mbirub njóoba sekk la mu wax doy na waar moom ndaw suñu jamate woon juróom benn fukk ak ñeent yoon yi nga xam ne lañ ko jamate ba mu daal di fa ñàkk ba kanam libération ne dafa ëmboon ba am juróom benn weer te loolee nag la ki nga xam ne la doon génnal mën su la nangu ndax moom Aliou Moto musta nangu njóoba sekk ëmb geneen doom gu gudul doomam tax ba jëf du ji daal di am yëglekaay bi ne ñi faat njóoba ëmbam bi yàqu ba du indi benn doom ci mim réew bu dul doomu Aliou Moto doomi Sénégal ya nekk ca Chine ca Wuhan ci guddi gu bët setagul lanu nekk enquête ne ay jirim dëgg ñoo nekk ca Wuhan ginnaaw jàngoroy coronavirus bi di ëllëwtiku askan wa fa nekk jamono jooje njiitu réew Macky Sall ne sunub réew di Sénégal amul jumtuwaay yi nga xam ne mën na tax ba mu delloo si ay fii ci mim réew enquête ne demal nag amal nañu ndaje gu yaatu diggante wayjur ndongo yi ak secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur jamono jooje ñuy toog di waxtaan ak réunion réewum Maroc Tunisie ak Algérie ñoom delloo si nañ seenub doom seenub réew quotidien ne gëndum njiitu réew Macky jëm ci gune yi nga xam ne ñoo nekk ci réew Chine lii ba futu rado ak horizon sans frontière ndaxte nee nanu kaddu njiitu réew mi xamuñu ana fan la ko teg musiba ba Touba la ñuy ba ngay jëm ci làmb ji wax ci jàkkaarloo Papa Sow ak Siteu borom Lansar yëglekaay bi ne seen ñaareelu face à face jàpp nañ ko ñaar fukki fan benn ci weeru février gi ñu nekk bi lay jàkkaarloo dox diggante Papa Sow ak Siteu seen jàkkaarloo jàkkaarloo du ko dàq réew mi quotidien ne borom kalandoo bi doon sàkku jigéen ca technopole borom tournevis ya tëj nañ ko giru dundam imaam Xaasim Basiru Diouf la mu def ëpp na laas ne daa doomu jàmbur ba noppi ëmbal ko teg ci